Euh, waa Amérique yëpp. Mhm. Ah, ak sama soxna nag. moom it ma nga Philadelphie. Oh. sëñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib. Uh-huh. maa ngi koy nuyu. soxna faatu Ndiaye. di nuyu ma ay sa bu baax di ko sant di ko gërëm moom itam. Mhm. dëgg yàlla ni muy taxawoo euh, ñooñ diine ji am na solo ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Mhm. Euh, sëriñ Abdoul Aziz jërëjëf macha allah yëngal nga xol yëpp. am na solo maa ngi jottali nuyoo soxna Fat Si bu sëñ Abdou Amine maa ngi jot message am ak soxna Ndeye Assou Si mhm. waaye sëriñ Moustapha Si bu sunu baay sëriñ euh, Babacar Si Abdou mu ngi yónnee message ne mu ngi topp jotaay bi sëriñ euh, Moustapha mu ne mu ngi topp jotaay bi am na solo mhm. euh, sëriñ Babacar Si رضي الله تعالى عنه دفع أملو عبد العزيز وحليكي موم اك تيسير نيو ماسي وايه دفع نكات بير تيسير موم سنبا وكر واو نيو ماسي مو نكات بير مو نكات بير خمنا علم العدد خم خم لا دقل علم العدد muy chiffre tey àdduna bi yëpp technologie bii ñuy utilise ci àdduna bi yëpp ci baa rek lañ ko liggéey weesuwu ko àdduna bi yëpp ndamit baa la àdduna bi yëpp xam-xam la boo xam ne mënoon na jël ay waxtu ñu di ci wax waaye ci lu gàtt rekk secret baa mhm. ci la Pape Hann di bindanteeg ka nekk Amérique mooy bu tombul du internet bii ngay gis lépp. Mhm. baa la ko. double vin baa la. deux ah, six mhm. nga def ko six fois mu jox la douze di double vin W nga def tomb baa dugal li nga soxla defaat tomb door a def point com. mooy W point W. Ah. secret adduna bi yëpp baala suuf si ay baa la taw bi baala nit ñi baalañu ndax nit lépp li ko composé baa la xam-xam boobu nag nga xam ne. Mm-hmm. mooy ilmul adat chiffre. Mm-hmm. boo xoolee sëriñ ba Aboubacar si. boo ko addadee. Mm-hmm. da lay jox 541. 541. moo tolloog al yusru. laa ilaha illallah. wa kun lana rabbi. fi kulli l umuuri faman. yakun kathalika yalqa. al yusru googu mooy Aboubacar si. ca wasilatul munna. ca wasilatul munna. laa ilaha illallah. léegi nee na boo jëlee Allah. samiu. mu jiibu mooy toll ak si mooy li yàlla wax ne wa ahsa kulla shay'in adada moo tax nit ñi même turu nit ñi nit ñépp bu kuy dox ci kaw suuf sa turam ci biir alquran amul benn nit booy siifur turam mu génn alquran baat wala aaya wala turu yàlla boo jëlee wa ufawidu amriya ila allah mm-hmm. cent 541 la moo tolloog Aboubacar si boo jëlee baatu mut amataani. saraxmaan 541 la moo tolloog Aboubacar si. turam zaati la. loolu nag dama ko daf ma daf ko junj rek moo tax. ma wax ci tuuti tuuti. bim ganee àdduna bi jàng jotee dañu Sëriñ Babacar si. Seydi Hadj Malick moo ko dalal jàng door koy jël jor jox ko góor gu ñuy wax Malick Sarr bu buudi góor gi Malick Sarr bu buudi magee woon na Seydi xaj Malick ñetti at mooy taawu taalibi Seydi Hadj Malick radiyallahu moom la ko Seydi Hadj Malick jox gannaaw bu mu ko dalalee ñu ne déet moom sax moo ko dalal comme na mag ñi daan jàngee dalal ko bisimilah rahim mu di ko jàngal ak Sidi Ahmed si magam ba benn bés. Mhm. Sidi Hadj malik ñu fekk leen ñu yor seen alwo di jàng ku ci nekk mu yëkkati alluwoom liir liir ba yàgg mu delloo leen ne ko malik mu ne ko mu ne ko ndax xam nga sa ñaari ndongo yi. mu ne ah si xanaa xam ne sama ñaari sang lañ rek mu ne ko Ahmed dafa fees bay tuuru te amul fu ko sotti Babacar dafa fees bay tuuru waaye am fu ko sotti mooy am na fuñ ko ko awoo bi ñuy jàng ñoom ñaar ba ñooro làmbe toj te yaayu góor gi maalik Sarr bu buu di nekk fa ci la ko Sir Hadj Malick woo ba mu ñëw mu ne ko ah way jur nag dafa am àq mhm. delluwaatal nga seeti sa way jur mhm. ci la ko jël jël jox góor gi Mor Xujja Si moo jàngal Serigne Babacar Si ba mokkal ci kër Yoro Sadio bi mu wattoo alquran Sir moo ko dalal jàng mhm. muy bàggante ci mag ñi di jàng am na góor gu baax gu ñuy wax moor bi tey boroom xam-xam la woon jàng na ci moom waaye mu mujj Sidi Hadj Malick méngoo njàngam di ko jàngal ba benn bés mu jug di ñëw Dakar comme ni ko yàlla may yenn nitu yàlla yi bu faydu bi xasee ñëw dootoo mënati suivre sa njaboot ci seen njàng mu ñëw Dakar gurki gi Baaji Gassama mo nek wayjur ci alxaaji cheikh Gassama le sir haji malik ànd ak seigne sëñ Si ba ci góor gi Gassama munoko ah dama ko dama beug na nga tiyel ma alwum diru limay nek fi seigne sëñ Si tok ak ëmbam sir haji malik delu mu ne gi ah man de beugon na ndox ñu may ko ndox mu nan mu dal di jelat ëmbam ne ko ah dama bëggul la ñaan digël rek dama bëggona a hmm ne ko da ngay dem mu ne ko ah, mu ne ko ah, baxna mu dal di dem mhm. bi mu demé ci Sidi Hadj malik Sidi Hadj malik ne ko da nga dellu si mu ne ko waaw mu ne ko lu tax mu ne ko damay bañ ku ma rax ci yow ndax damay bañ mbir mi doon mbir ëlëk nit mbiro ko tuddu mbiram ci la koy jangal di jangal bam am xam-xam li doomu soxna di dajale yépp mu am ko mu jox ko wirda mom sir Hadj malik ndax nak mom moko bind ne sir Hadj malik donte amna ay wax yu ci am waye ñun lim bind ci khafidam lolu lañ wéral dafa bind ne alhamdulillahi alladhi anamana ala at-tariq fayqina al muanana silsilati fi al-sa'iri an shaykhina al-allamah an-ni'riri al allaamatu niariiri سيدنا الحاج إمام مالك جساء ربي مالك الممالك عن شيخه وقاله العلامة ما يره وضراكة الفهامة عن شيخه القليفة القطب الأبر سيدنا عمدته الحاج عمر عن شيخه العاوي بأعلى رطب سيدنا غالي شريف النثبي عن سيخ الكبريت الأحمر الولي وتاج القطب الفضل المفضل من موم جوك وايام تي طريقه تيجان سلسله بني سلسله سيد حاج مالك سيوي موي موم سيد حاج مالك مكو جوك ورد لول لا بند سيد حاج مالك مام الفاي مايورو مام الفاي مايورو سي عمر فوتيو تعال سي عمر فوتيو Sidi Mahamadul Ghali Sidi Mahamadul Ghali Sidi Ahmed Tidiane noonu la ko toppee ba ci sunu borom pour gàttal rek. kii Sidi Hadj Malick di ko tarbiya. di ko tarbiya ba mu am fattu. dafa am lu daloon Sidi Ahmed Tidiane yi. radiyallahu taala anhu boo demee ci xaayatal amaan yi ci téere tariqa bi la bokk. Sidi Ali Harasim. Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu moo ko jox tariq moo moo ko jox tariqatu xalwatiya mu dem ba yonent bi feeñu ko sallallahu alayhi wa sallam mu jëlaat ci moom tariqatu Tidiane mu di ko defal tarbiya di ko defal tarbiya ba mu am fatxu bi mu amee fatxu daf ko oo ba mu ñëw mu ne ko ah maa ngi yow xajootuñu Ali Arasim mu ne ko fu may dem mu ne ko demal Ijaas loolu moo dal sëriñ Babacar si ak Seydi Hadji xaj radiyallahu anhuma bi mu ko tarbiyaa ba mu am fatu daf ko oo ba mu mu ne ko ah maa ngi ñëw mënatu ñëw dëkk dëkk bokk dëkk da ngay ndax suñu leeri xajootul macha allah mu ne ko ndax ma dem Thiès mu ne ko dafa jege ba ëpp mu ne ko ndax ma dem Louga mu ne ko a nga fa mhm. damay bañ ngeen laale mu ne ko ndax ma der dem ndar ga ma jóge woon ganee fa àdduna mu ne ko ba tey ndar daf ma sori ba ëpp mu ne ko ndax ma dem dakaar mu ne ko Dakar leer ga dafa lëndëm leer ga dafa sori maa ngi koy xëcc te yegg seegul maa ngi def tawasul ci sama borom di ñaan leer ga na mu sori mu xëcc ko kon bu fa dem mu ne ko ndax ma dem tëngéej mu ne ko waaw kay tëngéej baax na demal ma sha allah tëngéej fa la sëriñ Babacar si defee xalwaam bi gën a yàgg junney fan ak fukk ak ñett radiyallahu taala fa la ko Sidi Ahmad Tijaani fee ñëw jëmm ak jëmm fa la taalifee talaat lana shamsu huda kushifati duja liman ihtada ahni umaam al mubada marma waqad balaxal ma ko jëmm ak jëmm gis nga xasalam bu gudd boobu fa albada barqu saxnin min saniyaati mm-hmm. ah maa ngi tooñ Pape Hann ma ne ko nag danga ma bett <laughs> ndax ca 2007 Babacar log laa woon waaye léegi nag <laughs> xaw naa fàtte macha allah fi mu nekk ci tëngéej mm-hmm. fa la ko si Sidi ma tijaan yi feeñee jëmm ak jëmmu fa la ko waxee ne ko xus lii yaddaa xus lii yaddaa xus yaddaa fofu mu nekk ci tëngéej nak bimu fay dem dafa am mag mu bax mu ñuy wax khadi ali ja sir haj malik mom la ko bolé lon nako def ko muy sa waajur ta nga diko ko fréquenté xaadi ali ja yàlla def ko mayon kashf may ko lijaba may ko jagle ci is ci ifmu jalal daf ko wirde ba bu wiru ci mir sax ñu bind ci mir bi ismu jalal bu wéeroo ci garab garab gi doon خبي دون اسم جلال الله اكبر لجي نك تنجي جوجو مو نيك داي ديف سوفان مو جوغي كو تنجي ترين بي بيسو التيني ولا بيسو الخميس دم يندو سير حاج مالك بانغون مو رتورني سوري توكي دم فنن دي بين ليتر tagu sir haj malik mosna di dem louga daf ko bind ben lettre bo xamne daf ko wey daf ko waxne عليك رد الجليلي فإني قد عصمت على الرعيل توادعت مع الرجاء أمن وقيرات وبستر الجميل نعوت إلى العيال مريد صور وبأهلنا أرجو بالعلول وقادرت سلامة صغر, صغر غيب أرافقها إلى علي القفول وألفيت العيال كمال صلم كما أحببت من فضل الوكيل ما شاء الله دوغل سوي دم dem daf koy tàggu la muy doxi daf jëmmi jamono muy déplacé wu ñu ngi wax ne 1922 la 21 la 21 ci le juk di siyara ji Haj malik ben altine mu ñew siyara ko wara delu sir sir hadj malik nako da ngay dem mu nako ah, mu nako ah suma sañon de nga togani ba ca suba sa mu ñëw nuyuwaat ko mu ne ko ah ba tey mel na ni de da xaar sa suba sa de àllarba mu ñëwaat mu ne ko ah ba tey de mel na ni danga xaar ba yoor yooru alxemes ci la ñëw nuyoog moom mu ne ko da bëgg a dem mu ne ko waaw mu ne ko ah toogal mu toog mu ne ko ah dafa mel ni de ñi ma téyeloon seen dénkaane lii hmm. nee nañ sama ginnaaw yow la ñu wóolu allahu akbar suñ Babacar Si ah, manees naa nekk de nangu ci kaw kenn du ma xam ba ma jógee koo fi mhm. mu mel ni ah sëñ Pap déedéet lii dañ il faut il faut nga ñëwaat ñu àggale ko loolu mooy condition incha mhm. day nangu waaye si kaw mhm. kenn bañ ko xam moom sëñ ko fi mu ne ko manees na ko manees na ko mu ne ko dafa am liggéey bu ma nekk damay taalif ñaari téere mu ki ifhamu munkiri jaari ak kifayatul raxibin fi ma yahdi ila hadrati rabbil alamin ñaareel bi it mu ne ko zawiya ba ca ndar dama bëgg nga dem yeesala ji ko suñ Babacar Si ne ko ah maneef naa nekk waaye nag condition yi mooy danga nga may boole ak ku ma wéttali ba lu may jëf mu fekkee ko xam ko mu ne ko koo xelaat mu ne ko alxaaji Saidu Nuuru moo ko gungee muy liggéey mën naa ne histoire am moom am na ci loo xam ne alaaji Abdou moo ñu ci dimbale ndax daf dafa bind ci histoire Serigne Babacar Sy histoire boobu na mu demee ba dem ndar ba mu demee ba yeesal zawiye bi ba zawiye bi mat moom Serigne Babacar Sy nee na dafa toog benn bés rek mu am benn naar bu bëggoon Sidi Hadj Malick ñu koy wax Muxtaar Fall ñëw siyaare Sidi Hadj Malick retour na ñëw na ko ah sa ba way jur mu ngi lay nuyu sëriñ Babacar Si nee na de pare na ci ñaari téeréem mu lay laaj foo toll ci zawiya nee ci bis boobu di talaata lañ ko indil caabi zawiya bi nee bi ko ko muxtaaru waxee rek nawam dafa dog mu xam li fi dese si xaj Maalik bëreetul suba sam altine bisu altine lañ ko indil caabi ji ba set di talaata la lettre jóge ko Tiwaawoon góor gi Moussa Ñang bind ko ci ndigalu Seydi Hadji di sàkku Sëriñ Babacar Si mu jege si mu daal di jël terrain dem bi mu demee li mu njëkk a def bind lettre jox góor gi Mbàkke Si di jur ci sunu jur bàyyi xalifa Mbàkke Si ak euh, Mor Jàmmu Si jox ko ko ne ko demal ma jag saaw joxal ma ko sëriñ Haadi Faas Faas joxal ma ko ko ne na ñëw jege fi moom ak alaaji Abdu alaaji Abdu nee na maag sëriñ Haadi guddi lañu topp pour ñëw Tiwaawan nee na bi ñu ñëw euh, ñu ngi fekk sëriñ Babacar Si góor gi Mor Xuja Si alxaaji Saydu Nuuru ñu ngi wësifaa ci jàkka ji bay dooru sawiye bi bay dooru génn neena ñu nuyo ak ñom ñu and ak man yobuma ba ci neeg bi si hadji malik nek neena ñu ko fekk mu teud neena mu jël loxom tek ko fi tollok ji mbaxam jang suratu yasin ba jeex takkoog nak si hadji malik serigne babakar sir radiyallahu taala anhu dajale njabot gi ñu gor gi Abdou fatih Ñang nuru góor gi Amad Ñang Faati soxna Safiyatu Ñang alaaji Abdu balaaji Mansour maam Habib si Xaj Malik mu ngi jël penkam teg ko ci kaw soxna Safiyatu toog ba yàgg mu jug jàkkaarloog ñoom ñu xool ko mu ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ànd doon benn kajoor ak jolof bu njëkkateew yet bëgg la ko dóor nga fexe ba yat wi dallu ci sa kaw wàccewuñ ko ñu ngi ko ca kaw di xaar sa njaboot ñëw pour ñu dóor ko tas leen tàllal loxo alxaji Saydu Nuuru lal ko jël bu sëriñ kër Si teg ci jël bu alaaji Mansour teg ci jël bu alaaji Abdou teg ci jël bu alaaji Habib teg ci ne leen téyante leen toppante leen nii muy mardi mhm. na mu demee na mu génnee àdduna ba mu génnee àdduna li mu njëkk a def santaane ñu defar ko ñoom alaaji Abdoulaye Guèye bu faasal ñu defar ko daal mu sant góor gi Mor Khoudia si mu jullee ko nee na sax keneen la jëloon décision sëñ Abdou ma ko nettali ndax lii may nettali lu ci bari nag yàlla may na ma sens sëñ Abdou ma ko nettali mu jullee ko bi mu ko jullee ba noppi li mu njëkk def mooy def direct ci soxna Safiyatu Ñang jaale ko moom sëñ kër Si dem kër góor gi musaa Moussa Ñang euh, toog fa amutoon kër diiru li Seydi Hadji Malick di dund amul kër Tiwaawan toog fa mag ñi ne ah daje jot na dajale ñëpp ñu ñëw ñu woo ko mu ñëw moom sëñ Babacar Si daal di toog ñu ne ko waaw dañu xam ne sa jur sëriñ Seydi Hadji Malick jógee koo na fi te bàyyiwu fi dara te gan yaa ngi jógee ko fu nekk war a ñëw te kon il faut ñu seet nuñ demee Ngaay ak Cees dajale fa luñ ko dajale mu ne leen yéen yéen la seen papa génn àdduna wala sama papa man la génn àdduna Sidi Hadj Malick radiyallahu taala anhu lim liggéeyal yàlla génn àdduna tey tey ngeen nar ko yalwaanale bàyyi leen ba ma tële balaa suba ca ca yoor yoor fuñ fu bant samp takk na fa nag fuy mànga say dugal na fa dund mm-hmm. ah ñu mu nar a jug dem ñu ne ko déet toogal mu toog ñu ne ko yow xale nga mënu leen a wuutu si Hadj Malick 37 ans El Hadj Mansour 20 ans El Hadj Habib 16 ans El Hadj Abdou 18 ans kon dañuy seet kuñ dénk xilaafa gi ba ngeen màgg mu ne leen yéen da ngeen a tardé si Hadj Malick di dund ngeen di dund may dund 7 ans ma toog xilaafaam ngeen toog ba tey ngeen koy door a waxtaanee yéen da ngeen a tardé. la ilaha illallah yàlla dogal mu ne leen mu daal di jug dem bàyyi leen fa ñu tànn benn mag jiital ko mu ne ko mu ne déedéet déedéet déedéet gannaaw si Hajji Maalik taalibeem la mu ne ko déedéet de du ma xëccoo ginnaaw mbokkam la mu ne duma ma xëccoo ginnaaw ñu tànnaat keneen jiital ko mu gàntal ñu tànnaat kenn mu ne d'accord daal di ko jël ñu jugee ko ci mu ne mu ne moom mag moomu day def tournée xilaafa dem caapi caapi jamono jooju. mooy yi ndax dexu dex ga fa nekkoon moo tax ñu tuddee ko caabi ci góor gi kër góor gi Souleymane Samb mooy maamu Aminata Tall dafa mel ni. faraay ba yam faray otoraay ba di yam de waaye ma daaneel. histoire boobu ndax commencé maa xilaafa gi. Mhm. li xew ci xilaafa yonent bi daf ko dal. sëñ Pape. barakallah dafa mel ni faraay ba yem fa lay otaraay ba di yem. dëgg la de. <laughs> temps bi. mayewu ko. waaye góor gi sëriñ Babacar si bi mu déggee loolu mu ne dafay mu ñaar lañ tànn. Mhm. xilaafa gi joxuñ ko benn nit ñaari nit lañ ko jox. ñu nangu ko jël kenn ki ne day def tournée xilaafa jaar boori Cap-Vert keneen ki ne day def tournée xilaafa jaar boori Bawol. mu topp ki jëm booru bawal dajeeg moom kër góor gi Souleymane sàmm mu commerçant bu mag la woon di taalib Seydi Hadji Malick mooy maamu Aminata Tall bu. Euh, ministre euh, ministre Aminata Tall ci seen kër maam lañ daje timis jot ñu jiital góor gi sëriñ Babacar Si ca sàppi ba ca mujj la toog gàppandiku sedd bi daf ko jàpp keroog ñu li xaamal góor gi mu ne allahu akbar bëgg jàng jàng Faatiha mënu ko. Hmm? mu jéem jéem mu të mu jéem jéem mënta jàng mu daal di dellu ginnaaw góor gi Souleymane Samb moo jiite keroog timis mu bàyyi ba diggu guddi mu jël kaala gi laxas ci dox gi raam utali sëñ Babacar ne ko am sa mbaam a ngi sa fasa ngi li tax ab du wax ko ne si ub nga làmb ji xaasal xasri kenn du ko miim hmm. ku nekk sempi na sampam dellu góor ni ki xar commencement bala moo waral mu wéy ko lool si ub nga làmb ji kenn du ko miim hmm. ku nekk sempi na sampam mooy dafa am ñu sampoon dellu góor ni ki xar ñu ne ko mu jox ko catukaala gi ne ko am sa mbaama ngi sa fasa ngi noo xam defal bi may wattu alxuraan ganeegoo àdduna te tey rékki nga ma ba xamatuma dara defal ma ñaan ma dellu ca njaboot gi ñi ma dugal ci lii ñoo ma tooñ barakallah mu daal ko tàllalal mu ñaanal ko mu dellu si Tiwaawoon ñu ne ko ki doon def tournée xilaafa gi génn àdduna ma nga yoof mu ne déedéet génn àdduna daa yanul lu àttanul <laughs> ku yanuloo àttanul da nga goor mbaa nga tëdd mhm. ñu daal di ko yanu andil ko ko mu jël kurus gi tiim ko jàng jàng jàng ba yàgg mu ne ko diw mu ne ko un mu ne ko jugal mu daldi di jug na ko sob xilaafa bàyyi jàmbur bu ko ay doomam xëccoowul lu ko keneen xëccoo bay dafay tourné feñ pap بارك الله ما داني لي ما شاء الله كيسيون كيسيون خارما تبا مي دورا دون خلاف ما شاء الله خمغا وي نينكو انني قد كنت من اهل داري ومسكني بها لا داري اندري اثنان واربعون قل ساك العدد لنمرة داري اذا رمت المدد ان لم تكن تعرفها فاسمي يدلك صراط قلمي دا فام نكو سبب غورغي ساسوم جاخاتي موكو سبب waaye boobu dama koy leb xarma laa lay indil bi ñuy door a toog xilaafa mag ñi nattoo nañ ko lu ne. moo tax alaa jàpp na ko ub nga làmbu de da am na mag moo xam ne mu xaddam bu mag si Hadj Malick daf ne man xajuma kenn ci gannaaw Sidi Hadj Malick. Mhm. dafa ñëw ba ci buntu dëkk ba mu dal fa ne wax leen Babacar mu ñëw siyaara si ma maa ko mag ëpp ko wilaaya. sëñ Babacar si daal di ko dégg naa ah waaw waaw bu bëggee ne ma defal ko ko pour nattu sëriñ Babacar si mu bàyyi ba sëñ Babacar si di ñëw. mu jël ndoxam raxasu mi ñu ko euh, tegaloon ngir mu waaj a añ mu bind ci leetar sëñ Babacar si boot loxo mi ñëw na ko hmm, waaw waaw bu la neexee kay ba ci bind sa leetar si sa ndoxum raxasu bëgg ku la ko liiral góor gi daw tatafu ne ko bugg liir de am kurus gaa ngi yeesal ma mag ñi def délégation ñëw ne ko fa laay dañ lay laaj mu ne bismillah dañ la am lu ñu lay laaj mun ne ko bu ma ko xamee ñu ne ko dang ko xam sax mu ne bu ma ko sañee wax ñu ne ko dañuy laaj xar moo xam ne bi bop xaj la yaram bi di yaramu xar ndax dees na ko lekkam am deesu ko lekk suñ baaba gis ne da ngeen di jël ngooñ tegal ko jël yàpp tegal ko mm-hmm. bu fa ngooñ ma lekk yàpp ba ngeen xam ne xaj xaj kenn deesu ko lekk ñu ne ko am ah, man nañ ko tegal mu mos ci yàpp bi mos ci ngooñ mi mm-hmm. su boobaa nu ñuy def mu ne da ngeen di jël yar caw ko bu ne mbéy ngeen xam ne xar la bu ne mbëw ngeen xam ne xaj la <laughs> ñu ne ko buñ ko cawee mu ne mbéy ne mbëw nu ñuy def mu ne da ngeen di jël paaka rendi ko jël gerees gu ruyal ko sotti ko ci ndox mhm. bu tëmbee ngeen xam ne xar la gereesu xar day woyof bu diigee ngeen xam ne gereesu xaj la mu xaj kenn du ko lekk bu tëmbul diigul kër Si xamul lu muy doon ñu jël kurus gi jox na ko si yeesal ñu dañ la doon nattu rek ndax suñu laaj bi amul ci téere billahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu